la la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 Fala la ha La ilaha A'udzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim rahmanir Serigne Fallou mbokki mouride yi mbokki jullit yi safoo saa su nek daru Bairé Fall TV ñong leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaare ku xol fi nga xamanteni fi la nek xamni ñi ngi njaareem niñ leen ko waxe woon nag Daaru Bayra Fall fépp foo xamante ni nii dañ fa toggee li nga xamante ni mooy ndogu te njabootu Cheikh Rafal gi di ko def daañu fa dem wan leen ak ana nan lañ koy waajalee la nga xamante ni moo fa xew si tàmbali ga waaye ba keroog ñu koy jébbal ka nga xamante ni nii moom la ñuy jébbal seenu ndogu tey jii nag ñi ngi fii njaareem ñi ngi fii nii fii nga xamante ni nii fi lañ doon lewetalee léegi rek li nga xamante ni mooy mooy mooy nag yi waaye gis ngeen lii itam ginaar yi nga xamante ni naafu gerte lañ daan gis waaye tey boo bëggee gis naafu ndawal boo ñëwee fii nga xamante ni mooy njaareem di nga ko fi fekk buñ nee njaareem nag dëkk bi ñëpp xam nañ ñi fi la Serigne tuubaa nekkoon def na fi fukki at ak juróom waaye ndigal lii nga xamante ni tey moom la Baye faa li jël def ko muy farata te muy koor gi di toggi ndogu fii la ko sëñ sëñ Bamba joxe woon Cheikh Ibrahima Fall mu di ko wëyal njaboot gi ñëw it di ko wëyal ba tey jii sët yi ni niñ koy doxalee ñu ñëw fii keppaar gi nga xamante ni nag sëriñ di Khady Fall moo fi nekk moom Serif Assane Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp xam nañ buñ tuddee ndogu ajuma yi xel day dem ci moom ci jàmbaareem ak pastéefam waaye ak dooleel gi nga xamante ne dooleel na ko ndigal li nga xam mooy ndigalu Serigne Touba kon mbokk yi fii la tàmbaleeg yéen guddi gii wan leen fexe ngeen dund lii nga xamante ni moom la ñuy dund fii njaareem ba suba ak jàmm nga xamante ni bu ñu xëyee wan leen li nga xamante ni moo nekk si waañ bi. wan leen ni nga xamante ni moom la ñuy toggee wan leen ni nga xamante ni moom la ñuy waajee nii nga xamante ni nii moom la ñuy defaree li nga xamante ni ndog yi waaye yàpp gi nga xamante dañ koy yàpp si oto yi convoi bi jëm Touba ba niñ koy jébbalee ki nga xamante ni mooy Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké kon mbokk yi bismillah nañ tàbbi si biir ñu wan leen liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu murid yi ñu ngi leen di nuyuwaat tey jii si suba gi fii fi nga xamante ni mooy njaareem kër sëriñ Amdi Xadi Fall moom seen Assane Fall niñ leen ko waxee woon démb lañ ko tàmbalee woon wan leen li nga xamante ni moo fi am si li nga xamante ni mooy gàtt yi waajal gi ñu leen doon waajal ak li nga xamante ni mooy ganaar yi waaye sikar si fi amoon ak mboolem xeetu wàccaay yi nga xamante ni war naa am fii nga xamante ni mooy ndog yi nga xamante sëñ Amdi Xaadi dana ko togg ajuma bu jot daaru Bayra Faar fas yéene nim leen koy digalee saa su nekk ànd ak yéen dugg ci biir wan leen li nga xamante ni mooy liggéey bi waañ bi tey naka lay doxee naka lañ koy waajalee ndog yi waaye sax dañ leen wan ba wan leen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 ila asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bokki lislaam bokki taalibe yi njabootu borom Touba Xaadimu Rasul njabootu maam si Ibrahima Fall njabootu Serigne Assane Fall njabootu Serigne Amdi Khady Fall mu si Serigne Assane Fall Kawsara noo ngi di nuyu ci ndigul Serigne bi nuyoo bu ànd ak xol bu sedd ko cant sëriñ bi kat mi nga sant mboolem njaboot gi di sant mboolem lislaam gi di sant mboolem taalibe yi ci liggéey bu màgg bii ñuy liggéey ci weeru koor wi nga xam ni borom Tuubaa Xaadimu Rasuul moo woon maamam ju tedd ja maam une fois jox ndigal muy togg ay ndogu ci weeru koor loolu nag maamam ju baax ja maam si Ibrahima Fall daan ko togg fukki ndab ak ñaar ak suppeer bu ginaar ci fii ci njaareem ba nga xamante ni saa borom dogal na ci biir liggéey boobu bi mu di ko liggéey ba bàyyi koofi fi njobootam gépp muy maam si Ibrahima Fall di ko liggéey ba ñu njoboot gi bàyyi koo bunt mboolem këri maam si Ibrahima Fall yi ba ci buntu ja Serigne Saliou Fall Daaru Xafoor ñoom ñëpp ñu ne ci liggéeyum ndigal yi fii ni buntu kër maam si Ibrahima Fall boo dem di nga fekk ñuy def lu mel nii kon nag cant googi njabootu lislaam gépp ànd di wéyale ndigalul maamam loolu si am di Fall ni man lu ma def sant yàlla ci jublu ak jaar tank mag ña ca la amé tant ci la amé ngeureum mu wax ni nak kep ko xamanteni ni yaa ngi dégg nang ko ñaanalal ñaari kilifam ya ci karamam seigne muntaka mbacke ak seigne Amdi modou benda ñi nga xamanteni ni xalifa généralu murit ak xalifa généralu baye fall te ñaanalal ko seigne si jëm fall magam ju baax ji fi bayiko ko borom dolli ko ay ngeureum te yok ay leeram te dolli ay njëgalam ak yermandem ak magam yu baax yi ko jitu yep liggéey bi nag nun waa Kawsara dañu ci am benn bal jëm ñaari picc ndax bal bu njëkk bi mooy ndigalu borom Touba lu ñëw ci maam si Ibrahima Fall te maam si Ibrahima Fall waxan ci ni ndogu yéem a sëñ Bambay toggaloo ku ma ci defal lu ni ab tànk danaa la ci defal loo xam doo yàqu àddina doo yàqu àllaaxira ab tànk nag ci ndaw ñi du tànk yi ñuy doxee ñaari tànk moo di fiftin xaalis la te juróomi fiftin moo di ab dërëm dërëm bu ñu xaaj fukki yoon saamam ci Ibrahima Fall noonu na koo ko ci defal ci ndogu yii danaa la ci defal loo xam ne doo yàqu àdduna doo yàqu àllaaxira defal nag moo gën a moo moo gën a yaatu jox ndax bu dee jox ku amul alal doo joxe defal nag xolli ab pompe defal la xolli ab soble defal la xamb ak mat defal la root siwam ndox defal la lépp ci defal la ba ci nag télévision yi ngeen indi muy ay ndënd yoo xamante ne dañuy jàllale liggéeyu maam ci Ibrahima Fall bi fii ba bitim réew ñëpp xam ne maam ci Ibrahima Fall yi lay liggéeyal borom Touba Xaadimu Rasuul ci defal la bokk kon kooku bëgg nañoo dimbali. ba loolu amee nag ñuy togg ndog yi ba 1954 Serigne Fallou Mbakke jox Serigne Assane Fall ndigal. ne ko ndog yii ko baax ki doon toggaloo saaba Cheikh Ibra jox naa la ndigal nga di ko togg ajuma ba ajuma Serigne Assane Fall fonk gu mu fonk baatub Serigne Fallu Mbàkke boobee moo tax ma di ko togg ñamu Touba ñamu Touba nag mooy yàpp ak mburu Serigne Amdi Khady Fall nag suppiwul dara ci toggin wi 54 la ko Serigne Assane Fall tàmbalee toggee nii Serigne Amdi Khady Fall daal ana lu mu ci def mooy dañu ku yokkul yaa wàññi yokku na dayo bool yi yokku na limu bool yi waaye toggin wi nii la ko sëñ Assane Fall daan togge di ko jox sëñ Fallu di ko togg di ko jox sëñ Ablaat ba nëgë ni kii nu ko jox sëñ Mamadou Mountakha yal na ko fa yàgg yóbbu yàgg ko faa fekk yàgg ko jox yàgg ko nangul sëñ bi nag day wax ni man Moustapha gisuma li ma def liñ ma defal laa gis kon lañ sàkkatum laa si dànn kum moom mi nga sant tey gërëm lu mu am dina ko ci def lu ko waa jox mu defal la ko ci li mu bool yi nag yokk na ko lu tàmbali woon ci fukk ñaar ba dem ci lim bii ko sëñ Amdi Khady Fall di def na sëriñ Assane Fall ko jëkk a yokk ci ñaar fukki ndab ak ñeent 1974 ca kees sëñ Amdi di ko yokk ba mu ba lim bi yegg ci ay téeméer waaye nag sëñ bi nee na li tax du du nangu ko wax ni rey na nangami ginaar mbaa nangami nag mbaa nangami bool da nee na moom bu yéenee benn bool mbaa genn ginaar bu fekkee def nag benn bool mbaa genn ginaar mbaa wenn nag yéene wa yéene woon na junni da koo mënul koo xam ni fa sa yéene yegg nag sax man yëggu fa li nga def gisoo ko moo tax mu ni man Moustapha gisuma li ma def liñ ma defal laa gis waaye daal liggéey bi noo ngi ci ci positif bi lu waay am boo ko joxee mu defal la ko ci moom nag lu mu am dina ko def ba mu jeex tàkk ajuma ajuma yi daal sëñ Fallu Mbàkke moo joxoon sëñ Asan Fall ndigal dàkkanu ci ajuma yii muy benn bal bi ndogo yi nag li ko sabab muy ndigalu borom Touba bu ñëwoon ci maam si Ibrahima Fall Babu Mourid <coughs> loolu daal bokk na ci liggéey bi jërëjëf فلا إله mbokk yi comme niñ ko àndee démb ba léegi fi mu ne ñi ngi toll nag si indi li nga xamante ni mooy bool yi gannaaw bañ ko toggee ba noppi yéen a ngi dégg si micro bi ñuy laaj booli ginaar yi ak boolu ndawal yi mbaar mi ñu nekk nag fi mu ne sang si rek ñoo fi nekk ndax ñoom ñoo yoral seen bopp li nga xamante ni mooy organisation bi. léegi rek di ngeen gis bool yi bi benn par benn bu ko defee ñu ranger ko fii orné ko ni ba mu ba baax laataa ñu koy yàpp nag si camion bi yóbbu ko fii nga xamante mooy Touba. waaye li si doy waar mooy li ma souligné léegi mooy kilifa yi ñoom ñooy saytul seen bopp liggéey bi fii ñii ay rakkam lañ ñii ay doomam lañ. muy sëñ Amdi Xadi yàlla na fi yàgg loolu te wér kon mbokk yi nañ seetaan loolu bu ko defee ñu ànd tamit seetaan li nga xamante ni mooy yàpp giñ koy yàpp si oto yi ak convoi bi ni muy demee fii fii fii ba Touba bu ko defee ñu wan leen lépp loo xamante ni nii tàmbali woon nañ ko démb ba tey si liggéey bi bu am solo bii nga xam ne am Amdi Xadi Fall mi ngi koy liggéeyal ci maamam ja Cheikh Ibrahima Fall ci ndog yi jërë ngeen jëf kon ba si kanam ฮาลาลาปาลา la fa la la hai la la gannaaw ba ñu séddalee ba daal di rangeler li nga xamante ne nii mooy xéewal yi nga xamante ni moom la Baye Fall yi fàggandiku fas yéene ko yóbbul sëñ Mountakha Bassir moom fi teewal Serigne Touba yan kàddu nga am yooyu yëkkati jëmale ko ci mbokk taalibe yi moom mooy di ko baax rek kii defal ki gën na koy defal ni gën kii defal ki gën boo ko defal ni gën da nga koy ni gën te ni gën ci defee ni murit mooy positif bu ànd ko yar ak i teggin te yar ak teggin bu àndee mooy moo tudd ak taalibe mooy al adabul mardiya sëriñ bi daal ndigal la lu nga fekk bàyyi ko ci borom Touba ñëw ci maamam ba ci wëy juram sëriñ Assane Fall moom itam mu jëli ko ci wëy juram di ko doxal di yokk positif bi mi ngi nii nag noo ko gisandoo lu mu am dina ko ci def lu mu man dina ko ci def loo ko waay jox mu defal la ko ci suñ am di nag ne na koo mënta dem mbagool soo jógee da ko naan ay ci dem ndogu yi nag a ngi nii saa maam si Ibrahima daal moom la mu ci diggee woon mooy ndogu yii ma sëñ Bàmbay toggaloo ku ma ci defal lu tànk daa la ci defal loo xam ne doo yàqu adduna doo yàqu àllaaxira ab tànk nag mooy dërëm bu ñu xaaj fukki yoon loolu bëriwul li ko tàmbalee tànk ba fiftin ba milliard xiibuñu ci dara nawetu ko ci dara waaye si Amdy Khady Fall daal li muy wax nee na moom gisul li mu def liñ ko defal la gis kon nag yoon waa ngoon liggéey bu ànd ak positif lu way yëkkati yàlla tax ndax si Amdy Khady Fall ne yàlla amul kumpa dafa wax ni moom mi ngi sant yàlla mi ngi nuy digal nu sant le yàlla ndax ne lu mu yëkkate ak cant la ak itam jaar ci tànki mag ñi ndax jëf jii kat sunu sang bii nu àndal muy ndigal lu jóge woon ci borom Touba Xaadimu Rasuul ñëw ci maamam maam ci Ibrahima Fall ba ñëw ci Sëriñ Asan Fall mu tedd ma ba ñëw ci loxoom. yékkati gi mu ko yëkkatiwaat gën koo yokk ci positif te sëñ Amdy Khady Fall di wax ni lu wa yokkul yaa ko wàññi kon nag ba ko yokkee ba mu yékk fii te li mu li mu nuru nuru ab yokk moom xeeb na ko ndax sëñ Amdy Khady Fall ne na man Moustapha dey gisuma li ma def li ñu ma defal laa gis waaye lii ko defoon limu ci njukkale yàlla njukkale ci maamam njukkale ci Serigne Assane Fall sëñ Sidi Fall ne ci turu kilifaam yi mu yi ko yi ko jox kaddu ne na nañu ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ku wér ak ku tal ak ku man ba fu mu yóbbu yoon wi ren bu déwénee mu yóbbu ko fu ko ëpp nee na sëriñ bi nee na nañu ko ñaanal te ñaanal ñaari kilifaam yi ci kanamam sëñ Muntaxa ak sëñ Amdi Moodu Mbenda te ñaanal ko sëñ Cheikh Jëmb Faal kilifaam gi fi bàyyi koo daaw rek sa borom yokk ay ngërëmam ak magam yi ko jiitu sëñ bi nag nee ni mu déggee yëggaleb liggéey bi xolam sedd na ci ndax jëwriñ jaa ni taxaw señ ci de ngi taxaw señ mam Lamp ngi taxaw señ mam ci khalifa ngi taxaw ak seen seen rak si magi taalibe yaa ngi ñu taxaw. waaw ñëpp ñëpp eh, nga dégg léegi léegi ñëpp ñu nga taxaw léegi nag. sëñ sëñ Fallou Njaañ ana sëñ Fallou waaw kay sëñ sëñ Fall sëñ Fallou sëñ Fallou Ndiaye Njaaña mu sëriñ Assane Fall mi ngi ne taxaw ci ginnaaw magam ju baax jii nee na nee nañu nag. bi nga xamante ni yàlla dogal na liggéey bi ñëw ñun lañ ko def ci ab yara ak teggin yar bii nu def tey ak teggin yii tey naka jekkit moo fi am waaye dañ koo yokk sëriñ bi ne na aw bind la boo xamante ni mokkal nañ ko waaye na gën a mukk rumbux sëriñ bi lu na yar bi rafetlu na teggin yi ndax kat la wajuram wa baax wa daan wax moom la sëñ am na di faal wax sëñ Moodu Moustapha Faal da daan wax ni xamatuma ko ñàkk teggin xamatuma ko ñàkk taalibe ndax ku toog fi man Moustapha Fall di nga toog ci di nga toog suuf di nga xool suuf di nga wax ndànk waaye magi taaliba yii ngeen génn di jonjool ci mbedd mi ñoom ñooy xam seen yar ak seen teggin te bu ñu ñëwee ci man Moustapha Fall suñu ne is gay ma ni is bu ñu nee accam ma ni accam sëñ tiit yi mii ak rakkam ak taaliba yi ak jëwriñ yi tey jii daal liggéey bii naka jekk daan nañu wax waaye tey nag waxati nañu is gay is gay kon suñ am di xarit ni is gay no taalal sëñ bi ñaan amin amin amin amin nan rayo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 fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la la ha la la la la fa la la ha la la Sole bir far abide Fala ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Fala ilaha illallah La ilaha la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha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 la la ha la la fa la la ha la la la la la la la la ha la la fa la ilaha la la la ilaha la la la la la la la fa la la la la la la la la la la la la fa la la la la fa la la la la fa la la ha la la fa la la fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah comme ni ngeen ko gisee nii agsi nañ fi nga xamante ni mooy jumaa ji wan nañ leen la nga xamante ni jëlee nañ ko njaareem tàmbalee ko démb si guddi tey si bëccëg li nga xamante ni mooy cin yi ni mu demee woon togg beek matt meeg lépp ànd ak yéen convoi bi jëlal leen ko ba niñ ko indee fii nga xamante ni mooy résident Xaadim Rasuul fii nga xamante ni fi la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké nekk ñu jëbbal ko ko nag yéen a gis guddi nag waxtu wi la waa njaareem di doog a noppi ci seen séddale fi mu ne nag li fi ne mooy murid di xam ne ajuma yi kat si ndog yi la bokk waaye ajuma yi lu murid yi di bàyyi xel bu baax a baax a baax la ndax boo gisee tey bis bi mu demee xam nañ ni Touba duñ duñ liggéey ajuma ndog yi moom yi nga xamante ne moo jógee kër xalif général de Baye Fall moom day ñëw bis bu jot waaye mu ñëw nag tey yamook aljuma yi nga xamanteni mom la sëñ Amdi khadifal mom serif asandi Assane di indi li nga xamanteni moy mooy ndogom Touba xum lool neex loolu gis ngeen ambiance bi wa mbekté mi nga xamanteni Baye Fall yi am nañ ko tay kon ni la daru baye rafal TV di ande ak yeen sa su nek keur yi nga xamanteni ni ni ko su nek keur yi nga xamanteni wa keur Cheikh Rafal dañ fa nek di togg ndogu di indi Serigne Touba ko di Serigne Touba gi da ñëw fa dem wal nga xamanteni mo fa xew kon ñi ngi leen jox di bu suba jamu wa sallam